mbëtt <laughs> yi. ah loolu damaa xam ne yéen intellectuel du ngeen ko lekk eh, du ngeen lekk mbëtt da bàcc maar moom mooy rëbb mbëtt yi si àll bi di daw rek. <laughs> waaw lu tax ma doon wax loolu. <laughs> mooy euh, comme ni niñ ko waxee. loo gis rek fii Sénégal avant am na foo xam ne da fa daan dem on formé moom la ñu waxtaanee keroog mooy boo jógee sa kër dañ la fa daan yar. nga nekk si euh, seen koñ am na ñu lay yar. nga dem école am na ñu lay yar. Mm-hmm. les télévision affaire affaires yooyu am rôle boo xam ne tamit ñu ngi ko daan joué. mais am na loo xam ne si Sénégal tamit famille yoo xam ne ñi ngi divisé wu mooy ñi nga xam ne seen pàpp dafa am ñaari jabar walla ba ñett ci dundaayam famille bi divisé wu nañ lan moo ko divisé am na si ñenn ñoo xam ne ñi ngi gis na que seen pàpp ni muy traité ki nga xam ne du seen yaay du noonu mhm. keneen ki tamit gis di ne seen pàpp ni muy traité keneen ki du noonu ba nga xam ne ñoom ñoo bokk benn deret benn góor a leen jur mais du ñu tuddante loolu tamit mu nekk loo xam ne dafa bari sañu societé torop mm-hmm. te fan lay mujjee ba kilifa bi génnee àdduna bu kilifa bi génnee àdduna boo demee si yenn kër yi da ngay ruus da ngay ne est-ce que ñii ñoo bokk benn papa bi leen jur mm-hmm. moo tax je crois que nit booy dund am na loo xam ne war nga ko def sa famille mm. pour bés boo fi génnee famille bi am loo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ko xalaatee sax dinañ xam ne kat góor gi bëggul woon lii mm. mais xale yi je crois du ñu gisee côté boobu dañuy seen yaay yi xeexee seen doom waaw non man waxuma seen yaay yi yaay xeexee doom yi moo tax non waxuma seen yaay yi dama ne benn gisoo ko am benn jabar dama ñëpp bokk ndey ak baay paa bi dee ñuy eh, bariwul bariwul <laughs> bariwul dama ne yaay xeexee seen jabar yaay yi xeexewuñu seen jabar si yaay xeexewuñu seen dama ne loolu mooy dëgg góor bu nekk cër biñ la jox si àdduna mooy nga nag xool naka ngay defaree sa njaboot new ma loolu erreur paa la mais vision xale yi laay waxee foofu ba nga xam ne bu paa bi génnee àdduna am na ñoo xam ne dañuy ne par force kër gi dootul taxaw ci dañ koy jaay am ñoo xam ne kër gi duñ ko jaay am ñoo xam ne léeg lii dafa bari Sénégal mm-hmm. te mënuma comprendre fil bu gën a dagg fil boobu am ñoo xam ne bàyyi génn na àdduna seen famille ba léegi mënuñu def miiras ba léegi mënuñu def dara mm-hmm. parce que xale yi ñooy xëccoo seen biir donc loolu dafa nekk fil boo xam ne dafa dagg père am lu mu junj te loolu euh, ñu nekk si à l'étranger am na ñu bari daf leen di dal man mënuma gëm si àdduna yàgg seen jabar ngeen di liggéey sa jabar di yëkkati xaalis parce que wóolu na la di def sa kees di def si compte bi ngeen bokk compte compte commun hmm. nga jël xaalis boobu soit ñëw takkee ko soxna moom nga bëgg mu continuer di lay digal di lay di lay di lay respecté munoo jël sa xaalisu jabar boo xam ne yéen ñaar ko bokk nga ñëw fii Sénégal takk fi jabar moom mu nekk bitim réew daan liggéey ak yéen ngeen bokk ko nga ne kooku fil boobu dafa war a continuer pour mu respecté la te bari na si jigéen yi nga xam ne ñu ngi bitim réew loolu di leen dal si seen yenn góor yi donc loolu fil boobu daggul lan na ko mun defar. donc papa respect bi muy wax ne jigéen ñi dañ ko euh, joxul seeni borom kër am na lu koy. am na am na lu koy am lu koy suscité newuma lépp. si borom kër yi la am na jigéen yoo xam ne noonu la ñu dundoo kenn yaru leen am na mais dama ne am na yenn jigéen yi li ñuy kaas hmm. seen normal que ñu kaas ko mooy exemple bi ma joxe mm-hmm. wala nga bokk ak sa jëkkër nekk fii Sénégal ngeen di dajale yéen ñaar di dajale pour tabax ngeen tabax lu yànj mu ne dafay indi ñaareel si biir kër googu mais kër boobu yéen ko tabax yéen ñaar mais kooku est-ce que foofu fil dina fa mun a jub wala fil dafa war a dagg ko war a dagg. day dagg parce que li nga xam ne yow tabaxaloo ko sa bopp.